secrétaire à la vie politique euh, ñu dénk ko itam kàddu mouvement tekki Amadou Dieng ñu ngi lay nuyu gërëm la ci ànd beeg ñun tey ñu ngi lay nuyu euh, yow tamit soxna euh, Fatou. alors ñu tàmbali waxtaan wi ak euh, mbir mi nga xam ni ay fan a ngi nii daanaka ñëpp ci la ñuy yey di ci yàbbi muy mbiram Ousmane Sonko li ci bees nag mooy démb Cheikh Bamba Dièye ak Guirassy Moustapha di ay député bokkoon ci commission ad hoc bi nga xam ni moo war a liggéey ci yëkkati mbalaanu kiir kiirlaay am déet gu Ousmane Sonko danoo daal di tekki seen ndombal tànk ci boobale kuréel ndax ànd nga ci taxawaay booba ñu am mu génn ci commission ad bi. waaw ànd nañ ci eh, te bettuñu euh, ndax euh, coow li nga tudd léegi mu lëmbee réew mu lëmbee àdduna bi euh, ñu ko taxawal liñ ci jublu woon mooy nasaxal xelu askan bi daal koy utal beneen jubluwaay bu woro ak soxla yi dëgg-dëgg muy manipulation muy diversion donc lu mel noonu nag mënu ko def di ko teg ci ci lu jaar yoon eh, gis nañu ni ñun mbir mi tàmbalee fa ñu njëkk a duut suñu baaraam mooy ñu respecte ndey charte réew mi ñu respecté li nga xam ni ci la député yi tënkoo muy règlement intérieur bu assemblée nationale te ñoom ñaam ñëpp bu ñu leen xoolee eh, kenn eh, dagana lu ci ñu déglu Ousmane ñu lever immunité euh, parlementaire bu Ousmane Sonko ndax il n'est pas encore poursuivi ñu def nañ ci ay poste na ñu bëri dégguñu ko woon comprendre ñu ko woon waaye ñoom it teg nañ ci seen bët bañ demee xam nañ ni seen bëgg-bëgg teguwul ci ci yoon bu ko ñu ko teg fu jub ñu takk seeni bagage dem moo tax ànd nañ Hmm. waaye ndax Ousmane Sonko mi waxoon ngir mu wujji convocation faaw ñu yëkkati mbalaanu kiirlaayam euh, ni muy doxalee tey méngoo na ak euh, ni mu ni mu waxee woon ndax ngir ñu déglu ko faaw ñu lever immunité parlementaire am te yéen tey àndu leen ci boobale immunité parlementaire ñu yëkkati ko ndax xawuta waroo tuuti. waaw xam nga immunité immunité parlementaire waruñu ko fooye waruñoo euh, jël député mu taxawal askanam comme président la république ñu fal leen ci pratiquement même tali bi ndax euh, suffrage universel direct moo leen fal ñu jël leen sàng leen ab mbaalaan moo xam ne du ko jóg mën leen a fooye du ko jóg mën a lali pexe ngir tardeel sooxel démocratie ñu war cee mën a ànd ak yow ñu gis ni li ci waroo ci kàddu yi ak ci doxalin bi booba léegi jaarul yoon lu mu mën a doon bëgg-bëgg Ousmane Sonko bëgg-bëgg Ousmane Sonko féetewul kaw constitution féetewul kaw règlement intérieur xëy na euh, jàpp na ni dañ ko tuumaal gor la war naa taxaw ñu setal daram te mécanisme bi nga xam ne moom moo taxaw tëralin wi taxaw pour ñu mën a déglu député moo ñu laal li mbalaani kiir kiir laayam mm-hmm. waaye moom même ci moom bu ko bëggoon ñu laal li ko ñun duñu taxaw ñu nangu ñu laal lin wi ñu laalee ko nu leen neex. Hmm. ndax bu boobaa euh, li nga xam ne mooñu tënk ñu tënkoo ci ñun ñëpp dañ koy wor te ñun nag euh, dañoo gëm l' de droit dañoo gëm ay règles dañoo gëm ay chartes. Hmm. alors mbirum Ousmane Sonko moom a jur na leneen euh, mooy diggante police ak euh, ñi nga xam ne ñooy organisation yi saytu ak ak yelleefu doomu aadama ñu naan leen droit de l'homiste ñooña dañaa tuumaaloon euh, police ni ay xoqatal teg nañu ko ci kaw ñenn ñu ñu tegoon loxo te ñu faroon ak Ousmane Sonko loola coow li mu jur ñëpp dégg nañ ko ci noona dama lay laaj yan njeexital ngay ragal xëy na ci mbirum Ousmane Sonko bi ci wàllu démocratie mais itam ci wàllu yi moom mooy bi Macky Sall ñëwee xoqatal démocratie toroxal euh, nit ñu baax euh, loolu euh, moom foofu la lal doxalinu politique ndax bi ñu amee pétrole ak gaz jàpp nañ ni ay gis-gisam ak ay bëgg-bëggam dañoo soppeeku loolu nag il faut nga toroxal état de droit il faut nga néewal doole les patriotes il faut que nga xoñoñal démocratie loolu nag euh, je pense que euh, loolu dañu gis ni ñoom dañoo jaawale réew mañu ñu ne dañoo jaawale askan wi ñu ko séqal dañoo jaawale euh, époque bi ñu toll moom ci boppam moo wax ni boo ko mënee firi ak xarale yu bees yi kenn mënatu la tënk kenn liberté àgg na niveau boo xam ni xaalis ak opération mënatu ko téye et je pense fondamentalement que lii xew nii Euh, une fois de plus du moom ak société civile la joteel moom ak démocratie moom ci boppam moo am problème mu démocratie moom problème mu grandeur am na ku loon borom xam-xam bu loon wax quand la grandeur s'effondre l'unité se dissout hmm. yow mi nga xam ne yaa jiite boo amul mat tasaaro rek ngay mën a jur lay mën a jur gis nañu université ma ngay tasaaro gis nañ Sénégal ma ngay xaajaloo euh, loolu nag euh, jubluwaay bi mooy maintenir sax fii instrumentaliser réew mi askan yeeg cosaan yeeg fépp loo mën a jël lu ñu mën a jël pour sax ci kaw pouvoir rek euh, dinañ ko def fii ak deux mille vingt quatre et le vrai débat aujourd'hui nga xam ni moo jiiteel àdduna bi kenn waxatu ci waxatuñu bilan Covid fii Sénégal ñoom ñu doon fëgg seen dënn taxaw na ñoo jël deuxième ñoo raw ñëpp Nouvelle-Zélande rek a leen raw tey waxatuñ ci loolu tey ji waxatuñ ci calendrier électoral nga xam ni pilier démocratie la ñu xam kañ la ñuy élection ñu ko séq xam yow mi war a ñi wara a fubal xam kañ la ñuy fubal ni ñuy waajalee ni ñuy loolu tey moom rek ko xam foofu la démocratie Sénégal toll. Euh, société civile nag euh, wax dëgg yàlla gis nañu Macky Sall sooxeel na ko lu am solo la il faut ñu taxaw Sénégal yëpp mobiliser taxaw ñu jàkkaarloog moom xam ni am nañu responsabilité historique Afrique dañuy xool euh, gëm nañ suñu sunu démocratie. moo ëpp doole ay bëgg-bëggu Macky Sall ak régime ak la dynastie Faye Sall sax fi def troisième candidature loolu duñ ko duñ ko nangu duñ ko duñ ci duñ ci duñ ci ànd nañ Sénégalais gën a mobiliser wu ñu taxaw jàkkaarloog moom parce que tey ji li ñu gis bi ñu génnee ci Karim Wade génn ci xalifa Sall tey Ousmane Sonko la suba xamuñu kañ kan la je pense moom taxawuñu woon noonu Ablaye Wade taxawul woon noonu ak moom donc suñu démocratie Euh, nañu xam ni processus irréversible de souveraineté la. du ñu nangu nit ñoo xam ni gëmuñu réew mi bëgguñu réew mi tekkiwuñu dara c'est des traîtres mais mën naa la ko mën naa leen ko tudde tey gis nañu ñu ci transhumé ay milliards bi ñu defee seen déclaration de patrimoine kenn waxatu ko. donc foofu la réew mi toll foofu la aj àll kalaj gi toll waaye tey nag malheureusement euh, delloon nañu ci Ousmane Sonko Adji Sarr muy lu ridicule muy diversion bu machiavélique boo xam ni. jàpp nañ ni jigéen ñi bi ñuy xeex pour que képp ku leen sàkku euh, ñu mën ko criminaliser jubluwuñ woon ci lii lii c'est manqué de respect même à cette lutte historique très noble boo xam ni sunu ay yaay sunu ay jigéen sunu ay rakk ñoo jàkkaarloo xeex ko c'est manqué de respect franchement à cette lut la hmm. et je pense jigéen ñi xam nañu heureusement. dégguñu benn réseau ñu ay réseau sigil jigéen ak réseau yi laan xeex yépp ni niñ la tekk parce que les choses sont troublantes et la cohérence euh, la vérité au bout de la cohérence mm-hmm. tey ji daal euh, nañu taxaw mobiliser wu jàkkaarloo Macky Sall jëlee ko fii moom mooy jàmmi Sénégal. Mhm. fii ak booba nag wàllum euh, élection organisation bi nag euh, mën nañoo wax euh, ne mi ngi jëm kanam ndax fichier bi tàmbali nañu ko gëstu muy càkkuteef boo xam ne itam kuje politique gi boo ko biraloon ci Sénégal seen xel dal na ci auditeur boobu les fichiers. waa xam nga jant bi kenn du ko tëggal tam pour mu génn. Hmm. Sénégal rek ngay gis ñu def fichier mu nekk vraiment un acquis démocratique ñun ñu victoire de loolu ci mag Sall rek lañu ko gisee euh, loolu pour ñun lu lu normal la lu war a continuer di am la révision nit ñi dañuy juddu ñii di war a inscrire ñii di faatu loolu loolu nekkul lu banal la ci démocratie li am solo mooy taxaw dëgg-dëgg fëgg dëndam nañu kañ kan la kan laa def élection comme dama ko laan defee mais gis na ni fi mu toll nii euh, ci njuuj njaaj waxoon na bàyyi na ko mais ci njuuj njaaj la continuer nekk dialogue politique gis gis nañ lu mu jur cliché bi tamit nekkul événement événement alikala ji mooy mu taxaw wax ju kañ la ñuy mën a def élection euh, et je pense loolu buñ ci àggee euh, nit ñi dinañ seen xel dina gën a dal mais mbiri Macky Sall mënul dal suñu xel li dal suñu xel mooy la mobilisation citoyenne ñëpp xam ko hmm. nit ñi xam ni euh, yàlla wàccewu fi kenn pour mu régler benn nit mu régler su problème sénégalais yi kenn amul solution pour régler le problème de sénégalais Sénégal lii régler problème am mooy ay doomu ko taxaw ànd bëgg réew mi jàkkaarloo ñi nga xam ne bëgguñu réew mi yeneen intérêt la ñuy doxal te ñëpp xam nañ ko ku nekk choisir sa camp xeex boobu mun a ñàkk c'est irréversible nit ñi nañ ci jóg ñi ci war a wax nañ ci wax kilifa yi ñi ci war a dox xam naa ne ñu ngi ciy dox niñ ko bëgg niñ ko mënee mais il faut ñu comprendre enjeu yi fu mu toll. Hmm. ñii li mu leen jaral pour ñu téye confisquer la souveraineté des Sénégalais seen baat dafa rëy ndax les enjeux moom mooy sauver une dynastie de prédateurs. te loolu nag euh, mënul mënut a ñàkk faaw faaw faaw faaw askan wi dal seen kaw mënut a ñàkk faaw ñu ñu rendre compte askan wi leen dénkoon dénk leen juste ndax démocratie mooy daw ci Sénégal du seen juddu du seen xam-xam du seen mën a jàng du seen bëgg réew mi démocratie processus normal la boo xam ni day fal di folli fal na leen ñu bëgg ñu def jàmm ñun ñu ko nangu. ci élection yi ñu dëkkmal sax euh, naka ngeen koy waajee ñu tàmbalee ci local yi nga xam ni euh, donte xamaguñu kañ la waaye jàpp nañ ne soreetul noonu. oh waaw loolu Sénégal olof euh, ni ñu koy waxee élection moom bu ñu demee ba koy dàq kenn xamul kañ la loolu moom musiba la je pense les grandes démocraties foofu la leen di déterminer mooy ñu xam kañ ni élection bu ma la wax xale yi naan leen boo leen bëggee xam élection Amérique kañ lay am dangeen ngeen di xool. année bu mois de février nekk vingt neuf jours mooy année bissextile donc moi je pense loolu moo jaadu moom moo moo sérieux ñu ngi koy waaj nag ñu ngi waaj ndax euh, euh, politique loolu la loolu la laaj ñun xa teguñu ko ci ay élection dañu am devoir am war wareef boo xam ni euh, war nañoo mën continuer di leeral Sénégalais yi ndax homme politique mooy ki nga xam ni moo moo xool soxla ñëpp ne moom moo ko saso di ko doxal kooku nag du ko teg ci ay élection ci wareefam la te mouvement tekki wareef la woote euh, taxawee suñuy responsabilité suñuy wareef ci kaw suuf ñun loolu la ñu woote teg ko ci fonk sa kàddu teg ko ci respecter jigéen teg ko ci courage patriotique hmm. euh, et je pense ces valeurs là euh, dañu continuer di ko jàngale élection am wala mu ñàkk am mais ñu ngi organiser wu nag à la hmm. base organiser suñuy coordination dans les quarante cinq départements dans le cadre du CRD ñu ngi wu ñu ngi organisé wu di ak toutes les forces vives les forces patriotiques et démocratiques aujourd'hui qui son ñi nga xam ne d'accord nañ ci suñu projet euh, ni mooy euh, jële fi la prédation teg fi de producteurs ndax loolu mooy sa mooy mooy sa mooy mooy mooy wutale mala ak doomu aadama te ñun nag dañoo jàpp ne yàlla jox nañu teraanga boo xam ne ci wàllu xam-xam ci wàllu xel ci wàllu bëgg suñu réew euh, dañoo bor a bokk ci ñi nga xam ni Euh, ñooy décider. Hmm. est-ce que Mamadou Lamine Diallo euh, dana bokk ci ñi nga xam ne ñooy euh, daganaat baatu askan wi ci élection présidentielle notamment bi ñu jëkk muy 2024. waaw pré élection présidentielle excès guñ ci je pense saaga moom yaakamtee xeex la. Hmm. waaye nag Mamadou Lamine Diallo 2007 la nekkoon candidat boobu kenn xamu ko gënoon naa jafe tey tekki ñëpp xam nañ ko mi ngi ci xoolu Sénégalais yu bëree bëree bëri ñu àndul ak ñun sax d'accord nañ ci suñu projet politique. ni ci ay principe ay wareef yu dëgër la taxaw et moom laa rappelé tout tout tout à l'heure euh, et, donc euh, bu ñu euh, ci conditions yi yóbboo bëggoon nañ koo nekk en 2012 ñu gis ni élection yi na mu mel ñëpp xam nañ ko duma ci dellu si daa jàppoon nañ ni Abdoulaye Wade waroon a nekk candidat xeex boobu fa lañ ko tegoon en 2019 également déposé nañ suñu dossier Macky Sall ak sa son parrainage corrompu mais ñi ñoo war a nekk candidat deux mille vingt quatre instance su mouvement tekki buñ ci waxtaanee eh, jàpp ni eh, nii lañ ci war a demee Mamadou Lamine Diallo mooy suñu candidat naturel ñun jàpp nañ ni chance la Sénégal am président la République bu tudd Mamadou la Diallo bu jiite mouvement tekki ci xam-xamam ci bëgg réew mi ci jaar-jaaram mu dem école polytechnique de Paris ne jaar classe préparatoire yi ñuy wax siiwal ko ci jamonoy ñoom jaari sow coow li fi amoon ñoom foofu lañ jaar wër àdduna bi ñëw samp euh, gis-gisu politique tuddee ko tekki mu tekki am njëriñ amal ko sa bopp amal ko sa gox amal ko sa askan amal ko sa réew amal ko Afrique. mais est-ce que projet politique bi mu indi sénégalais yi xam nañ ko ak itam est-ce que euh, soobu nañ ci adhéré nañ ci. waaw sénégalais yi ñu ngi ci adhéré moo tax ñu toog ci ba léegi. Hmm. je pense 2007 ak léegi lu bëri xew na. te parti bi mi ngi màgg. parti bi mi ngi màgg moo tax tey ngeen dégg ku mel ni man deux mille vingt deux mille deux mille sept boobu ñun ñoo gënoon a tuuti ci parti bi nekk ay xale. Hmm. donc ñun màgg nañ te euh, c'est des milliers yu mel ni man yoo xam ni Mamadou Lamine Diallo leen yar ci tekki la ñu yaru ci idéologie bi la ñu gëm. te mën nañ koo wax comme ni ma koy waxee kon ñu ngi màgg. jërëjëf Amadou Dieng ñu ngi lay gërëm euh, kon euh, ci waxtaan wi ak ñun yow yaay secrétaire à la vie politique euh, nekk itam porte-parole bu mouvement Tekki Mamadou Lamine Diallo jiite ko amoon nañu mbégte lool dalal la ci waxtaan wi tey ci réew Rewmi FM. jërëjëf.